mbokki daara asaabu Cheikh del si nañ ci daara ji ci jumaa bi ci bindeb Seyda Xadijatu Diouf mooy lettre misri bi ci xatam cinquante quatre bi lan la misri wax ma ngay dénkante nañ war a àndoo ci bàyyi ak nañ war a jox koo ak moom loolu lettre bi am na njëriñ pour ñëpp alhamdulilah xamdu laaw ko moom a sayid a daax sayid daax li sax ndax lii kaana aaxiru sil qaxada de mujj ak diggi euh, bi maanaa isaa kaan daf ko yàq daf ko lii isaa bu nekkee aaxiratil qaada bi nga moo gis nga fii seen seen mbind dafa jël laam bi taxale ko ak kii bi xol lu jël xol fii amuloo ko isaa kaana aaxiratil qaada bu ñu demee ba ci mujj ak digg diggi fasir jogal nga dox fi xidmat cheikh pour ci liggéeyal bàyyi ilaa ababina jëm suñu topp yi fi laaj ci demal nga wëreelu ci liggéeyu baay bi fu ñu mën a nekk xaytu maa ñu mën a nekk wa sakkiru nga fàttali gaay billaay ci laahu boo demee nag ci mbokk yi nang leen fàttaleku fàttali yàlla wa taawuni ak nga dimbalante dimbalante ànd ñoom fil xidmat yi ci liggéeyal baay boo demee waar leen dimbalante ñu ci liggéeyal baay ndaxte boo mënta dem gis ku dikki ba sa kër ah nga am loo mën a joxe mu dem kala ko di yóbbul ah dimbal na kon nag fal aaxiratu aaxiratu xayrun moo gën mina dunya dafay dugal ñaari kii waaye benn bi rek la aaxiratu ah, fin ba fañ jëm fa moo gën fii nii wala aaxiratu xayrun mina dunya waaqaati moo gën a des wallaahu laahu xayrun moo gën waaqaa mina aaxira ndax laahu mooy fi des duniyaa day jeex ah laaxu jeex moom kon nag wallaahu xayrun wa abqaa minal aaxirati aaxira moom ngay ñu jëm sax xam nga ah duniyaa moo gën aaxira moom it moo gën aaxira te moo gën a des moo tax ñun lu ñuy def duniyaa taxu ñoo jóg aaxira taxu ñoo jóg laaxoo ñu tax a cey wa aqulu dinaa wax man mi ci lahum ñe leen allah allah jàppaleen ci laahu jàppaleen ci laahu wala tansoo bu leen fàtte allah la bu leen fàtte laa bu leen fàtte yàlla laa tansoo laahu lu tax fàttaliku yàlla lu tax li tutlaa pour defaru duniyaaxum seen àddina wa uxuraawum ak seen àllaaxira ndaxte kon gis bu ko seen xel nay daw ci yàlla pour ngeen mën a defar seen fii ak seen fële wa tutlaa daal defar na xuloobuhum seen xol seen xol yi defaru ah mu ubboodi tum ak seen ubboode ga wilaay ndaxte ñoom pays ubóot lay nekk pays waa wilaay ñoo nekk ci ubóot yitu waaye ñu ne ci pays ubóot lañ nekk ngeen mën a defee seen xol yi ak seen ubóot gi lilaay waa su ko defee lii nag wëyal wëtal misu ak seen ak taalibe li ci yàq seen ak taalibe seen ak taalibe seen ak seen ak taalibe ci yàq mën a defee wa astawdi maa ngi di gën a allah yàlla aljamii ñëpp yéen ñëpp nag dénk ko ci kenn xam nga borom maa ngi leen dénk bàyyi borom jin maa ngi leen dénk bàyyi nit dafay xam boo dénkaanee yi nag maa ngi leen nekk yéen ngi jagle man lam yuwaasil ku jokkoon ak Cheikh Cheikh an mu jokkook moom maa dénk ñëpp ku xam ne bransante woo ak Cheikh te bu ñu ngi lay fexe nga fexe bransante ak moom man jaaruma diggante kenn bàyyi dikk leen ku ko ci jokkoo la ba mu dikkal fexe nga jokkook moom falaw alimoo bu ngeen xamoon maa bi muwaasalati li nekk jokkoog bàyyi li nekk jokkoog sëriñ bi ku ko xamoon minal xëyri tiiw wal barakati ak barke lama qaadoo duñ toog xanu bañ ko seeti duñ toog bañ ko seeti ko xamul li ci nekk ci nekk jokkoog bàyyi la ci nekk ci ak yiw ak barke ko ci xamoon doo toog moo tax gis nga kon gis nga lii mooy sëriñ wala xarit ci yàlla xarit ci yàlla dafa jëriñu waxal la fam jaar ba jëriñu da kaa jaar fi yow itam jëriñu loolu la misiri def ah, wala yam na xoo terewul min muwaasalati moom dara terewul ñu jokkoog bàyyi ilaa doful xaal xaal lu mooy xaal bu faiblesse rek faiblesse rek maanaam ñàkk fay rek doy doy rek xaal bu doy di képp moo ñu tax jokkoo ñoom moom euh, xaal wa taaluka ak loo topp xaal bi nga nekk ak loo xam ne yaa nga ca dégg de xam nga waaw man de li ma nekkoon li ma nekkoon temps yi maa nekk si naan maa nekk si naan xaal xaal yooyu <laughs> dara tax jokkoo ñoom bàyyi lu mooy lii rek faiblesse xaal ak xajuwaay ah, man nag wala arda duma kontaan li ahbaabi samay sopp man misri wa ixwaane yi ak ñoo bokk fi laaj yàlla kontaanuma jom ak taaxir ñuy tardé fii ci yàlla man day kontaanuma ci taaxir mooy tardé man day kontaanuma gërëmu ci sama sopp yi ak sama mbokk yi ci yàlla ñuy tàdd ci yàlla kon nag mbokk yi nañ bàyyi tardement bi moo indi ba tey kat ba tey mu ci moo ñu dal ba tey jàngoro joxoon jooju jàngoro jooju moo ñu dal ba tey ah man de dëgg-dëgg yàlla maa ngi déglu kii daaw ba ren waaye nangam nangam nangam waaw yow boo déggoon tey ne fii boo fi dikkee am xaalis da nga dikk kon daal àddina moom buñ ko waxee gëm nga waaye bu waxee yàlla moom waaw man lu ma camos rek baax man kay naa jot kase kii rek di bindi kon nag man day gërëmuma ci sama soppeek sama mbokk yi ci yàlla am tardement kon xam nga lu ma leen sant fa ilal amaam acc acc ca kanam ca kanam ca kanam ca kanam wa asalu maa ngi ñaan allah yàlla min fadlihi ca mbaaxam ka an yeñ ma dajale xoloobal jamee xol yépp xaalis yàlla maa ngi ñaan yàlla mu xol yépp mu dajale ko ci moom ak lan wa an yaqusanaa euh, ak mu jàpp wa an yaqusa kon ak mu jàpp bi ay dinaa suñuy loxo jamee xam ñu ñépp mu téye si loxo xaccinu ilaa kamaali marifati jëm ci mat ak xam ko wa mahabati yi ak bëgg ko wóonu sidqi ak dëggu euh, ak rafetu dëggu wa tawaju yi ak jublu ili jëm ci moom loolu naa ko koy ñaan mu defal ñu ko suñ xol yépp mu dajale ko ci moom jël suñ loxo xacc ko bañ xam ko xam bu ma sëkk am mbëggeel ci moom rafet niñ dëggoo ci moom ak niñ jubloo ci moom ah, kon nag wabaara naar yi gannaaw buñ tabaskee mooy la insha allah bu soobee yàlla tarjoxon day jël ci illina ci jun mm-hmm. ah, léegi nag ndaw li nga xam ne moom la bàyyi yebal pour mu toppatoo tabaski ak yi demee xaalis yëpp dañ ko toppatoo ñoom mm-hmm. bu tabaski passé ndaw li day di saat illina ci wa in am kanaka su la jàppandee nag yow anta ta nga nga romba ñun ci Dakar ci Dakar nga anta ta arada googu ci nan ci nam su fekkee ne man ngaa jaar ci ñun ca Dakar romb ila boo fa mën a jaar walla dara nekku ci baax na de boo ko mënoon ba ñu mënoon jaar romb romb Dakar jaar ko fekk jaar ñu jaar fa ñun ah ndax gisaar rek bàyyi wokkun na nga nekk ala na nekk sa xel mais am di saba yi mbiram gàtt yi ñu rey fiasal am ci at mii gàtt yi ñu war a rey ci tabaski bi bàyyi ci xel fala budda mënta ñàkk en tout cas fira ci moom baada Euh, rujoxika gannaaw boo delloo mënta ñàkk boo demee ba ñibbisi ah nga del si ñun baada rujoxika fa inaha mbir mi saw fa tantasiroo xalsen naa wisaaroo fi haasi sanati bii at ah konoon lépp li nafaadil bàqari mu ne ko nag sawfa nastari kon lay wax fa inaa sawfa nastari xel seen tastari xel seen jënd kaa si sanati bii at xam nga dañ daan jëlee seen gétt yi gétt yi nag ambas bu ci dugg ba naye dee mu ne nag gannaaw amuñ ko dañ koy jënd ci keneen dañuy jënd de ah. waaye ñun bu doon eh, ñun ko gannaaw gétt gi jeex na déedéet misir mu ne فإن سوف تستدي في هذه السنة كلا لنفار البقر ndax jeexal nag yi fi hati nawaay yi ci côté yi nag yëpp dee kon nañooy jëndaat lépp ci ñeneen wa kullu man képp koo xamante ni uh, xadara attan na uh, an yu baaxa uh, an yubaa jënd bi samanin sawrin képp koo xam ne am nga man-manu jënd benn yëkk aw ba adin wala genn min maanaam wala nga cotisé def ko def genn wàll mu jar fukki junne nga joxe juróomi junne yi ku mën a jënd complètement baax na soo mën a jënd nga min soom fal yàqaan na def na def loolu ku mën a jënd yëkk na jënd yëkk ku mënul jënd yëkk na joxe genn wàllu yëkk ah, kon loolu dafa wat ñun wokkin matul masjid yi liggéey jàkk ja nag maasaala jor jor dañu alinaaj ñun li kat baay baay du yónni dem bàyyi du yónni kenn dem na demal demal joxel ma ñoom ñooy seen ne waajib la ci ñun ñu def ko lii mooy diggante taal waaye nag taali boo xam ne balaa mooy def dañ ko yënga yëngalaat <laughs> loolu daal naari xamuñ ko moom ñoom li yëpp ñoo ko cotisé seen bopp seen bopp suñ toppatoo nag nag yi ba pare jàkka jàng ñi nag waxit man ma ci di maasal alena kon nag foofu tawoo ubbi leen loxoo ñeel jàkka ja baabu tabaro aati buntab coobare bi maanaam li wax euh, kenn ku ne la muy engagé na wax ne engagé nañ man daan def ci jàkk ji nangam mooy tabaru at cote saa kon nag na ngeen ut bunta eh, lu tamit mu ko bañ matal jàkk ji yéen ñëpp lu nit man ko bañ pare jàkk ah kon nag eh, su fekkee si ni loolu am na fala naa dañ am alfaqra ndam bu dee jàkka ji man na dañ am ndam wootaraku ak titre almu abadaan yoo xam ne ñu dappetu titre boo xam ne àddina ak alaaxira daañ ko amee di caale ci loolu wa awnullaahi ndimbalu yàlla nag yës bu naa mi ngi ànd na ñun fi jëmi lépp nag bu leen foog ne yéen li ma lay wax nañ ko def ndimbalu yàlla ànd nañ ci liñ bëgg a def nii as jog leen te waa lii nañ jàngal ah, ah, mobilité ni niñ koy defee waaye balaa ngay jox jay taalibe yi acca ko joxe fukkoo am jaar fukkoo ko joxe junne déedéet dogu dogu leen ci joxe ca kaw sa man-man balaa joxe jot waaye joxe boo xam ne xéexée gaa yi laa yett li de gaa yi li ko seen kii de man de loolu bëgguma ko ci joxe kon nag wa sawfa tarawna xel ci ngeen gis insha allah bu soobee yàlla natijata taamulikum résultat wu seen volontaire bi al lil masuliyati ci nga xam ne mooy responsabilité bi da gis seen taamul boo ko déggee mooy volontaire naa moom engagé naa nangam seen résultat engagement bi ngeen jël ci responsabilité da ngeen ko gis aajilan wa aajilan da ngeen ko gis fii ci àddina da ci àllaaxira te mooy loolu mooy li am inna allazina qaddamu li naa la muraadum saatuma kon gis nga xidma xidmaan bi dafay nekk xidma boo xamante ni xidma bu tegu ci yoon la nañ def dajale pour tabax jàkka nañ dajale pour di nga maam joxe tabaski yooyu dafa nekk yu am important kon nag da ngeen gis résultat bi ajilan wa ajilan laa yastawi du yemoo minkum ci yéen man anfaqa ñi dépensé seen alal min qabli yi aaya al aaya ci suratul fati ñi nga xamante ni dañoo lépp ba fëta ba bi maanaam fëtu ma kay amat nga xam ne yonenti boobu nga am euh, néew doole bari man man bariwut man man nga jóg yow jël sa doole ak bam dem Medina ba da am victoire ci Badar dem victoire ci ur ak ci bi nga xamante ni mooy xeex ya mu doog a dikkër a futul Makka ña jëloon walanteeru li fatu Makka yemoñ ak ñaa xam ne gannaaw bu foto amee te lañ dikk mooy lan jamono bii bàyyi nekkee ci jamono yi jafe-jafe kañ ne nangoon ànd ak moom ca jafe-jafe ba ba jafe-jafe ba jeex du ñem ak ñaa xam tey moo mel naka ñun ñii tey boo dikkee rek moom saalawu rek ne maa bëgg a bàyyi rek daal ci bokk bokk de alxaaya waaye ma seex fi tay tàkkoodunaa moo ñu xamat wa tasabunaa moo ànd ñun kon yéen jóg leen rek dugg ci commencé rek ah yitteem ji ak moom mooy mooy omat wasalaam ak kookum seen mbokk raaj yi ki yaakaar mi ngi yaakaar mi ngi ko ceen ictimal xuloo bi suñ xol yëpp daje ci laaj ci yàlla maa ngi ko yaakaar Mouhamadou Misri kon nag mi mi ngi amoon mille trois cent quatre vingt la doonoon ñu taxaw foofu wala aywa kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.